internationale. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak internet yi ñu bàyyi xel seen info point net ak seen info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen dëgtal li gën a fës si xëtu njëkku yéenekaay yi tey mercredi di 14 septembre 2022 dañ koy tàmbaleek yéenekaay bii di L'As quotidien ñoom nag euh, ñëw nañ ci li nga xam ne moom mooy diggante Macky Sall ak Aminata ture miñ jàpp ne daal fi mu nekk nii seen tàqaliko euh, tàmbali na ñëwaat nañ itam ci assemblée nationale euh, mu ne gannaaw nag lañ fa nemmeeku woon altine ci ba ñuy installé quatorzième législature bi mu ne mel na ni nag eh, ñii di député ya daal eh, xam nañ ne eh, lañu ñu defoon baaxul ba tax na ñu ngay daal bëggale kon fi mu nekk nii jaarale mbir ya ca yoon ñëwaat nañ itam ci màggal tuuba bi nga xam ne kon ñu ngi koy waajal ëllëg ñu ne nag fële ca Tiwaawan kon ñu ngi fay daal màggal kii di sëriñ Touba. Dakar Times dañoo ñëwaat eh, ci eh, mbirum Aminata Touré maanaam ñàkk tànn giñ ko tànn ngir mu nekk candidate bu benn Bokk Yaakaar gannaaw bi nga xamee ne sax moo jiite campagne bi defoon ci lu am solo ñu ne nag loolu daal day wane daal eh, ñàkkal doole bu ñu ñàkkal doole néewal doole boo xam ne defati nañ ko ab jigéen. Sud Quotidien ñëwaat ba léegi ci présidentielle 2024 mu ne nag Mimi Touré booy xool sax. moo teree nelaw bokk na ci ñi nga xam ne kon dañoo teree nelaw njiitu réew mi euh, Macky Sall euh, loolu sax kon xanaa tax ba ñu yaakaar ne xanaa moo tax mu jël euh, dogal bi mu jël bañ ko def candidate bu présidence bu assemblée nationale ñëwaat nañ itam ci màggal Touba bi la yoon di cent vingt huitième édition muy nag bés boo xam ne daal bésu ba ñaan la te bés bu am solo la. le quotidien yéen kay ñëwaat ci ñu ne Mimi Touré nag bàyyiwaat na kii di Macky Sall waat nañ nag ci ni nga xam ne seenu ko ànd noonu la demee depuis ñoom ñaar daal biñ dalee ànd ci politique ak léegi. Walf Quotidien ñëwaat ba léegi ci Aminata ture ñu ne moom nag booy xool sax. Euh, mer bii mu mer boo mooywul du baax ci ñi nga xam ne ñoom ñooy benn Bokk Yaakaar fële ci assemblée nationale nga xam ne sax euh, seenub euh, majorité euh, lu tuuti daal la ëppee benn sax benn voix kese la ëppee kon lii di opposition bi ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy gaz yi nga xam ne kon nekk na fii ci Sénégal te mu feeñ suñu wax yi ñu war koo jaay ñu ne loolu nag lu baax lay doon si lii di suñu koom ñëwaat nañ ba léegi ci kii di Gris Bordeaux ñu ne moom nag 2015 ba léegi booy xool amatul victoire ci li nga xam ne mooy euh, làmb ji ba tax kon ñu samp ci ab laaj les éco yéen kay dañoo ñëwaat euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, Amadou Mame Diop ma ñu fal président assemblée nationale gannaaw bi nga xamee ne njiitu réew mi Macky Sall moom la tànnoon ñu ne nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Benno ñu ngay gaarwaale Mimi ñu ngay gaaruwaare kon ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré eh, ci kañ boo xam ne ñu ngi koy kañ kon kookule di Amadou Mame Diop ñëwaat nañ ak eh, itam démb ci élection vice président yu assemblée nationale yi ñu ne nag kii di Farba Ngom eh, daal dañoo lank ñii di opposition bi dañoo lank ne du watel par procuration ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré. enquête yéen kay ñëwaat ba léegi ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy député yu quatorzième législature yi ñu ne gannaaw bi nga xamee ne nag lundi tàngoon na lool ak la xew lu bëri te ñu koy ñaawlu ñu ne nag euh, daa mel ni fi mu nekk nii nag euh, yeddaat nañ seen bopp ba daal di doxal mbir ya démb bi ñuy amal élection bureau bi ñëwaat nañ ba léegi ci li nga xam ne moom mooy Aminata Touré ñu ne nag fi mu nekk nii daal ndax dafa fas yéenaa demal boppam bàyyi waa. APR ak Benno Bokk Yaakaar l'évidence quotidien ñëwaat ci bureau bu assemblée nationale mu ne nag président njiitu réew mi Macky Sall daal booy xool dafa effacé euh, ancien ya fi mu nekk nii nag euh, daal ay àndandoo yu bees kon la teg le ca assemblée nationale ñu ñëwaat euh, ba léegi ci li nga xam ne moom mooy Amadou maam Diop ak nag daal ay doxalin yoo xam ne ñu ne yu euh, ay doxalin yoo xam ne kon euh, doxal na ko fële ca sab ko euh, mu doon jiite kon dikkaat nañ daal ca nam koy nam ko doon doxalee. Vox Pop dañoo ñëw ba léegi ci li nga xam ne moom mooy événement bi ñëpp di xaar ëllëg muy màggalu Tuuba ñëwaat nañ nag ci li nga xam ne moom mooy exil bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba defoon na ko dem fële ca Gabon te loolu sax lañuy ñuy màggal kon. Euh, ci boobu boobule màggal kon di waram suba ñëwaat nañ itam ci tarixa murit ak huit xalif yi nga xam ne kon euh, jot nañu toog si li nga xam ne moom mooy jal bi ba léegi ñëwaat nañ ca opération yoo xam ne euh, waa police ñu ngi koy amal muy ab opération pré màggal maanaam avant màggal yi ñu ne nag lu toll ci cent mille cent soixante dix neuf individus kon lu toll ci mille mille cent soixante dix neuf ci ay nit teg nañ leen loxo lu toll ci deux cent vingt huit déféré nañ leen ca jàpp nañ itam ay euh, yamba lu toll ci onze kilogrammes euh, wante itam amagum na lu toll ci cent trente accident yoo xam ne ñetti nit ñàkk nañ ca seen bakkan source a dañoo ñëw ba léegi ci li nga xam ne moom mooy euh, ba léegi mbirum assemblée nationale rek ak daal fal ba ñu fal bureau baak yi ni mel ñu ne nag euh, booy xool sax euh, ñoom dikkaat nañ ci waxtaan yi nga xam ne euh, Macky Sall moom la mujjee def ak député yu benn bokk yaakaar balaa ñuy dem foofu le ci assemblée nationale ñëwaat nañ itam ci kii di Adji Mbergane Kanouté nga xam ne sax mooy vice président bu groupe parlementaire benn bokk yaakaar moom nag nee na jàpp na ne kii di Mimi Touré daal dafa mer rek waaye sax di mer googu daal. Euh, dina ko bàyyi ba sax euh, mu amaat daal euh, taxawaay ba nga xam ne amoon amoon na ko l'observateur dañoo ñëw ci li nga xam ne moom mooy màggalug Touba fasal nag seen xët bu njëkk xalif général des Mourides ñu dikkaat nag kon te na nga xam ne noonu la ñu war a amalee événement bu mag boobule nga xam ne kon ëllëg ci 15 septembre euh, bi la ñëwaat nañ itam ba léegi ci li nga xam ne moom mooy fonctionnement bu assemblée national ak nag installation ba nga xam ne euh, jafe-jafe yi ñemeeku ci bésub installation ba nee nañ loolu nag boo moytuwul euh, dina sooxe bu baax li nga xam ne moom mooy assemblée nationale ni muy doxee ñëwaat nañ itam ci équipe nationale ak opération bi nga xam ne. Bouna Sarr dañ ko ko doon defal ci li nga xam ne mooy omba ñu ne nag opération bi am na ci jàmm. le témoin yéen kay ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, assemblée nationale ak la fa xewoon lëndi ñu ne gannaaw nag euh, li nga xam ne daal moo fa xewoon euh, te mu ñaawoon lool ñu ne nag démb sax booy xool opposition bi daal imposé na lii di cohabitation kon dina am foofu la ci ci assemblée nationale ñu ne sax li nga xam ne moom mooy poste bureau yi booy xool dañ koo xaajale ci seen diggante ñoom ñaar di pouvoir. ak opposition ñëwaat nañu itam euh, ci ko bi ñuy fàttaliku ki nga xam ne moom mooy maam Abdou Aziz Sy Dabakh nekkoon xalif général des Tidianes vingt cinq ans gannaaw bi mu benn bi mu génnee àdduna mu nekkoon bésu ba 14 septembre tribune yéene kay ñëwaat euh, ba léegi ci élection bu assemblée bureau assemblée nationale ba ñu ne nag ab révélation boo xam ne kon Abdoulaye euh, Seydou Sow moo ko def ñu ne Farba Ngom moom yoroon na lu toll ci quatre-vingt-trois procuration ñëwaat nañ itam ci sampub laaj lan moo tax nanguwul delloo Mimi Touré procuration ba nga xam ne kon mu ko ko doon laaj ñëwaat nañ ba léegi ci li nga xam ne moom mooy euh, diggante Mami euh, Macky Sall ak Mimi Touré ñu ne nag moom moom la di Mimi Touré sax dina des assemblée nationale waaye war na ginnaaw li nga xam ne moom mooy Benno Bokk Yaakaar bés bi le jour ñëwaat ci ab dossier boo xam ne dañ koo amal ci màggalugu Touba bi nga xam ne kon ëllëg lay am fële ca Touba ñëw nag nag ci li nga xam ne kon liggéey bi Cheikh Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul liggéey ak fi mu nekk nii eh, bam fi jógee ba léegi ay doomam ak sëtam yoo xam ne ñu ngi koy doxal ñëwaat nañ itam ci ak fàttaliku. jëmale ci ki nga xam ne moom mooy euh, sëriñ Abdul Aziz Sy Dabakh nekkoon fi xalif général de Tidiane ak itam euh, homme d'état bii di Djibo Leyti ñu ne ñoom ñaar ñëpp nag bésu 14 septembre lañu ñu génnoon àdduna l'info yéenekaay ñëwaat ba léegi ci bureau assemblée nationale mu ne nag gannaaw bi nga xamee ne jaxoon nañu lool ci lëndi ba ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, député yi daal delloo si waat nañ seen ko xel ñëwaat nañ itam euh, ci euh, ki nga xam ne euh, moom mooy Abdoul mbay moom nag mu ngay àddu jëmale ci mbirum Aminata Touré bi nag mu ne nag Macky Sall daal dafa yaakaar ne daa am daal ñu war a def daa am ñoo xam ne kon dañuy liggéey ba pare ñeneen feeku seen liggéey libération yéeni kay ñëwaat ba léegi ci assemblée nationale ñu ne nag membre bureau ya fal nañ leen démb waaye nag euh, ci palin ba euh, métti woon na lool ñëwaat itam ci euh, xalif général des si Serigne taxa Mbacké fësal ko nataal bu yanj sax ñu ne nag fi mu nekk nii dikkaat nañ ci li nga xam ne moom mooy màggal googu am gim am solo murit yi nga xam ne ñu ngi jóge fu ne ngir dem foofale ca Touba ak it Serigne Mountakha ci xalif yi nga xam ne utu nañ euh, xalif yi nga xam ne toog euh, jot nañ toog si jal bi kon ba sëriñ Serigne Mountakha ak liggéey bu solo bi nga xam ne kon euh, mu ngi koy def foofale ca Touba.